amnun min lain wa min shaqawatin wa min makril muin wax ne kon liñ bëgg mooy texe ñeel na jaam bi nga xam ne day jaamu yàlla ci jàng alquran alquran jooju nga xam ne da koy fegal tiis da koy fegal njàqare fa tuuba li abdin yaabudullaha rabbahu bi tartiili quraanin azimin yaqi karba kon loolu lenn lu lu tuuti la rek ci lu yaato yaatu yoo loo xam ne sëriñ bi dudd na ko ci jàng alxuraan ci biir xasidaam yi loolu lépp ak soññee la ci nun rawatina nag ci weeru tedd wii di weeru alxuraan muy weeru koor nga xam ne lépp lu ci nit ki def ci lu baax suñ boroom da koy fulal kon képp koo xam ne jullit nga rawatina koo xam ne taalibeeb sëriñ bi nga lépp loo doon def fanku alquran lepp lo farlu won war nga ko yok war nga ko ful kon war nañu gën gor lu ci yok suñu yitte yok suñu pas-pas yok lepp lo xam da nañ ko def mu jëm ci alquran ak mokal ko ak gorlu ci ci jëfé lañ ca man ci ay ndigalam bàyyi ay tereem war nañoo gën a góorgóorlu ci jàppale ñi nga xam ne ñoo ca nekk ngir ñu man koo defe na mu gën a rafete ña koy jàng ak ña koy jàngale lépp loo xam ne daanañ ko def ci taxawu leen ci jàppale leen war nañ caa gën a góorgóorlu ndax kat ginnaaw mokkal alquran day fard kifaaya kon ku ca nekk rekk yaa nga ca nekkal ka ca nekkut kon sëriñ bi ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér mu Cheikh Mouhamadou Mountakha wane na bu baax a baax yoon wi nga xam ne ca la sëriñ bi jaaroon ci fonk ñi na yëngatu ci alquran ba tax mu am bis boo xam ne da koo daje da ko da jagleel ñiy jàng alquran ak xam-xam ngir soññ leen ngir teral leen ngir ñaax leen mu doon loo xam ne yàgg na koo def yàlla na ko yàlla kàttanal yokk aw fanam sàmm ko ba muy di ko def du yàgg a yàgg yàgg loola rek ab joxañ la ci wa ñu war a roy ci moom ci fonk niti alquran yi fonk alquran war a roy it ci ñi nga xam ne yàlla baaxe na leen ci dëkk bi te ñuy taxawu daara yi di leen jàppale ñooñu it ñu ngi ñaanal yàlla yokk seen kàttan yokk seen man-man kon di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu taxawuñu taxawuñu ñu alquran nangul ñu suñuy jaamu yàlla ñu boole ñu bokk ci ñi koy sàmmal téeréem boobu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.